jërë ngeen jëf euh, mbokk internet 313 euh, digital ginnaaw bu nu leen euh, nuyoo pare ñi ngi fii nga xam ni moo di biscuiterie pour ñëw section bi fi nekk nu xool tey ji depuis ba li nga xam ne nag moo di parrainage demale ko ci candidat bi di Bassirou Diomaye Faye tey ji liggéey bi nan si toll naam boo xoolee yeneen gox yi boobu ba léegi ñu ngi wëyal bu baax a baax li nga xam ne nag moo di liggéey bi ci loolu gi nag na daal di wàcc xool ndax parrainage bi fii ni gën a biir maintenant nit ñi ñu ngi ñëw di parrainer bu baax a xam tey ñoo pour parrainer kii di Bassirou Diomaye Faye. waaw maa yore euh, maa diriger Mojib Biscuiterie maanaam kuréelu jigéen ñi daal. Mhm. waaw ba pare ma nekkaat encore euh, présidente cellule ñaatali waaw. alors donc tey nag waa 313 digital ñoo wàccoon si sali bi pour xool waa euh, parti bi nga xam ne nag moo di Pastef nan la ñuy waajalee wala nan. ah liggéey bi moom macha allah depuis bu fiche yi commencé mhm. ñun dañoo am ay jeunes yoo xamante ne. dañ leen euh, dispatché ci koñ yi jeunes yi ñoo doon def parrainage bi ñoo doon euh, parrainer nit ñi léegi comme que tey jour week la samedi ak euh, dimanche suba ñun ñi nga xamante ne ñu ñooy mag yi ñu ñëw ñun tamit ñu barkeelu ci liggéey bi waaw mais mais daal nuñ ko gisee engouement bi moom macha allah nit ñi dañuy woo man premier jour bi dañ maa woo ba sama portable bi plat ma mujjee sax ma mujjee euh, euh, kii portable bi mais ba tey nit ñaa ngi woote rek nit ñaa ngi woote rek waaw malgré même bu ñu too boo toogee kër ga sax nit ñi dañ lay fekk si mais dañu ne pour mu gën a am ampleur en même temps tamit ñu wone publicité Pastef fii si ñaartali Tali. Mhm. moo tax ñu génn fii pour nit ñi gis ñu. waaw. alors donc tey jii mën na nañu wax ni au lieu ngeen dem di wuti li nga xam ne nag moo di parrain yi parrain yi moo leen di wut. nit ñi ñoo ñuy yow gis nga ko nit ñi ñoo ñuy ut si. yow gis nga ku romb rek gis ne ah ñun de dañoo buggoon pare ne waaye euh, xamuñu woon fu ñuy fu ñuy jaar mais comme que gis nañ leen ñu ngi kii mais am na ñoo xamante ne suñu numéro yi mhm. dañ koo sandi partout mhm. am na ñoo am ñoom moo tax ñooñu dañuy woo mais ñi nga xamante ne ñoom peut-être duñ xamuñu gisuñu kii suñu numéro yi si mhm. net bi wala si réseau yi ñoom ñooy ñëw ñu leen di pare parrainer mais gis nga macha allah ñu ngi ni feu yaa ngi nii fees del macha waaw alors si xayma tey jii bu ñu doon euh, xool depuis ba commencé rek léegi est-ce que tey jii euh, lim bi ngeen xam ne am ngeen ko nekk na lu takku. ñun premier bi rek xale yi ne oh, oh, pare nañu mil premier jour bi deuxième jour bi 1000 tamit jot def nañ 1000 sans compter ñun yu ñuy joxe ni ak saadi tamit yu ñuy joxe mais en même temps ñun xam nga dañuy parrainer fii di parrainer aale waa Grand Dakar parce que fii comme que ñaari communes yi dañoo xaw a jege. waa Grand Dakar tam dañoo bëri ñoom tamit dañ leen di defar ay fiches à ak benn benn yi nga xamante ñu ngi si région yi ñu ngi si yeneen communes yi tamit waaw. alors ñii ñëw ñi ay ndaw na doon wala ay mag na ñuy doon. affaire bi daal dafa jaxasi mélange mais mag yi tam bëri nañu. Mhm. waaw mag yi bëri nañu. mag yi si boppam sax bu ñu gisee ñoom ñooy kontaan news di pare ne mhm. surtout mag yi yow gis nga femme bi du gis nga voilà femme bi fi jógee am na beneen góor tamit boo xamante ne mag la léegi la fi jógee mhm. waaw. c'est très important merci beaucoup yaay booy. nu ñëwoo fi nga xam ne nag moo di fii si ñaatali pour xool euh, parrainage yu Bassirou euh, fu mu toll tey jii lan nga mën a expliquer ci li nga xam ne nag moo di parrainage dip ba ngeen dooree ba léegi. bon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax euh, di gërëm yàlla ndaxte yàlla mu ñuy may wéer gu yaram di féliciter liggéey bu rafet bu ñu nekk di def ñu nag suñu morom yi. ndaxte comme ni nga ko waxee ex parti PASTEF dafa di parti boo xam état d'esprit lay demee malgré dañ ko dissoudre ñun ñu ciy def ay liggéey boo xamante ne bu mucc boo xamante ne musul am fenn depuis parrainage yi commencé. parce que demande yi dafa bëri euh, ñi ñi ñuy interpellé fu nekk ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax te ñi ñaa ngi gën ci gox yi. te comme nu ma la ko waxee c'était une ex boo xamante ne on était bien organisé. waaw te je pense que incha allah euh, li ñëw moom dina nekk loo xamante ne. lu baax lay doon quoi incha allah. alors euh, fii ak nuy buukale li nga xam ne nag moo di parrainage yi tey jii est-ce que jàpp ngeen 2 millions wala 3 millions yi ngeen xam ne yéen bëgg ngeen ko am dina mat. bon instant yi moom man maa ngi sant yàlla rek comme ni mu la ko waxee rek alhamdulilah rek la ñu mën a wax man moom euh, xam naa ne ñun Biscuiterie moom comme ni mu la ko waxee demande bi dafa bëri lool lool lool ba tey ay guddi bëccëg ñu ngi liggéey waaw mais xam naa ne incha allah dinañu jàll alors lan nga mën a wax si euh, choix bi nga xam ne Ousmane euh, porté na ko ci ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye. bon choix bu baax la projet bi moo ñu ñor ñun projet bi Sénégal lu muy changé jeunes yi liggéey comme euh, ex suñu candidat parce président ex parti Pastef ni mu ko waxee loolu ñëpp bokk ñëpp jot si. ñun loolu mooy loolu moo ñu ñor mooy maanaam projet bi daal nañ ko éteindre maanaam waaw. loolu mooy solution bi nag parce que nit ñi dañoo sonn franchement sénégalais yi dañoo sonn waaw te nag yàlla baax na daal yàlla baax na waaw. waaw ñu ngi si dernière phase bi kay euh, kontaan nañ trop si sénégalais yi ñu ñëwee euh, adhéré si pare parrainage bi ñu def pour euh, Pastef parce que amoon nañ njox trop na sénégalais teg nañ Sonko fu sori wante parrainage bi daf ñu wa daf dafa sut suñu njoot parce que nit ñi dañ lay woo fu nekk naan dañu bëgg a na Sonko dañu bëgg a parrainer Sonko am na ñi nga xam ne sax. Euh, nu ñu koy waxatee am na ñi nga xam ne sax pare newuñ mais dañuy nekk di la encouragé di la ñaanal di kontaan ñu ngi dëb ñi ngi bëgg daal ba pare parrainage bi nga xam ne dafa àndal da ngay parrainage dangay ngay parrainage pare am loo jox pour jàppale parti bi kon ñun kontaan nañ trop si taxawaay te Sénégalais yi taxawoo si projet PASTEF bi kon su ma déggee sa biir wax dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw parrainé Ousmane Sonko pare yi ci waat encore seen koppar euh, teg ko si waaw bëri na kay bëri na dañuy ñëw parrainé Ousmane Sonko pare jël am lu ñu la jox ne la àddiya pour Ousmane Sonko kon euh, sénégalais daal adhéré nañ si projet Ousmane Sonko bi wax dëgg yàlla. jërëjëf ok jërëjëf. ñu gis la léegi yaa ngi dawal sa oto romb gis euh, maire yi toog di def li nga xam nag moo di parrainage pour Bassirou nga daal wàcc ñëw parrainé lan moo lan moo la xiir ci li nu mel. mais c'est la motivation tout le monde veut changement. Mhm. comme ki ñuy xeex ñu ngi ko tëj ci biir kaso bi. Mhm. te on a trouvé une alternative. mais alternative boobu lañu mën a jàpp. et on va se battre pour ça hein. j'ai un ami woo naa ko téléphone léegi nee naa ko ñëwal fii am na parrainage. Mhm. waaw c'est ça. donc cela ngeen bi. le le Pastef euh, euh, ah. si toll lan nga nu mën a expliquer ci loolu. waaw mbirum parrainage moom ñun ñu ngi ci koom ba man mii di sax maa ngi ay fiche de parrainage yoo ni bi la bu Bassirou Diomaye Faye bi. Mhm. waaw ñu doon wër nag ci localité di collecter ay parrainage mhm. man bu biscuiterie laa yor nag mais affaire yaa ngi avancé bu baax a baax incha allah parce que man am na yu ma am na loo ma yoroon jot naa ko livré léegi yeneen ñu instant ñoo ma dese waaw loo bi jeex na instant yi trois copies laa fa dese instant xam naa dinaa foog ma photocopier waat incha allah alors donc tey jii bi ngeen tàmbalee ba léegi si xayma ñaata ngeen jot a parrainé ah maa ngi doon dégg nag million à peu mhm. mooy bu loolu laa dégg daal gars yi génnee waaw mais ñu ñi à peu près man moom ak ñi ma àndal ban am na kenn koo xam ne moom ma jox fii si sax moom jot na pare na cent mille personnes instant yii nii waaw instant yii cent astafurla cent cent cent personnes waaw man maa ngi ci cinquante moom i yii nii waaw waa Touba wax ni ñoom ñoo dàq pare ne waa Dakar ndax ñoom dañuy pare ne pare yëkkati ab koppar taxi est-ce que loolu mi am fii Dakar waaw fii waaw xam nga Touba moom mënu bokk fii moom mm-hmm. Touba moom xam nga ñoom digal la ñuy doxee bokkul ñoom dañoo xër moom mooy loolu mais fii bu baax a baax franchement mu ngi avancé bu parce que nit dalay wooyee fu ne pour parrainer xam nga mooy loolu il suffit que ñu jox sa numéro rek comme ça mu woo la pour mu parrainer quoi mais fi mu ngi avancé. alors question choix bi nga xam ne Ousmane moom la daal di porté ci kii di Bassirou Diomaye loolu tey jii yéen ñi bokk ci parti bi di ex-Pastef ban jàngat ngeen si mën a def. waaw li ñu ci mën a jàngat rek mooy choix bu baax la. choix bu baax la parce que Bassirou boo xoolee mooy Sonko ñoom ñaar dañoo ndiroo sa profil mun nañu wax ni sax Bassirou moo gën a dal Sonko bu toogee plateau ni bii wax xam nga benn am na xam xam nga. te dal te posé na moo tax kon Sonko daal Bassirou mooy Sonko. te ñun ànd leen si. waaw am nañ confiance ci moom bu baax a baax incha allah waaw. ok jaayef. nuyu naa leen. ñoo ngi lay fay. tey jii bu doon boo leen doon choisir entre euh, kii di Bassirou Diomaye maanaam ki nga xam ne mooy représenté Ousmane Sonko ak Amadou Ba kan ngeen di choisir. Sonko la ñuy choisir. ak Amadou Ba. Sonko. Sonko ngeen di choisir. waaw lan Sonko da lay neex. waaw ah, dañ ko bëgg toogee fii mu defar réew mi. alors euh, mbokk internet yi ginnaaw bu nu ñëwee fi nga xam ne nag moo di euh, Biscuiterie ñëw nga xam ne nag ñoo di coordinateur yi nu nekk ci euh, parrainage yi gis ngeen kàddu yi nga xam ne nag yëkkati nañ ko demee aussi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon tey ji pour parrainer yi nga xam ne leen di jaajëfal baax baax leen jox dig dajee si kanam tuuti ak yeneen information naka noonee wéy leen di nga xam ne nag moo di digital